Mbayang Diop bu ñu fàttalikoo di senegales bi faatoon njaatigeem ñetti at ci gannaaw ci Arabie Saoudite boobaak léegi situation am dara changé wu ci am Fall di doom ji fi Mbayang Diop bàyyi woon te tollu léegi ci juróom-ñetti at lii la yóbbante yaayam. yàlla ñëw jàmm si baax suñu Tuubaa Mbàkke. Amadou Diop ne. ñett weer a ngi ni wut ak rakam ji di mbayang job tek ci buñu ñu bunjee dégganteem mbayang xamal nako ne dafa fébar wa li may lancer mom moy autorité yi jàppale ñu rek parce que mbayang mom yag na fa té ba légui mi ngi tok rek wéet gisul kenn gisul yaay gisul papa am gañu na ci ginaaw gisul kenn te autorité yi nek fofu nonu muy ambassade bi at baat lañ fay dem benn yoon lañu fa dem seeti ko boobu ba léegi kenn demaatu fa te moom bi mu gisee woo ak léegi dafa yàgg mën na trois mois te bi ma koy mujjee jot dafa demee woon dafa feebar léegi nag ci loolu nag ci laa génnaat bëgg autorités yi jàppalee ñu ñu dem seeti Mbayang ndax mu mën a dal quoi parce que ku feebar moom nekk hôpital sax bëgg nga ko la seet si asumalaat nga nekk ci ay ay kii quoi xam euh, nu mu tudd waay nga nekk prison. vraiment day metti trop quoi waaw day metti trop. waaw condition yi nga doon dégg daal mbay day wootee vraiment su wootee moom dal na dal na dal na parce que dañ ko doon dalal mais léegi moo ñuy dalal sa loi dëkk kenn mënu la ko changé ne la lii ngay def bañ sa loxo ne la lii ngay def dañuy ak ñoom rek di leen ñaan chaque jour état bi da leen di ñaan ñun tamit famille bi dañ leen di ñaan parce que ku tooñ moom da ngay jégalu mais tamit comme xale yi màggaguñu te juróom-ñeenti at lañ wax te ñetti at demaguñ na ko li ci des mu ëpp te comme feebar na tamit dañ ko war a seeti quoi man daal loolu laa jàpp dañ ko war a seeti quoi loi Arabie Saoudite nag kenn mënu koo dindi wala nga puusale ko wala nga toppale ko seen loi seen loi la nañ ko waaye tamit ku nekk foofu tamit nekk ci benn situation boo xamante ni ñu ngi la fa garder ba pare nga mujj feebar a ah jaadu na say mbokk mun a déplacé wu seet bu ñu mënoon déplacé wu la ñuy déplacé wu ak suñu moyen bopp dem seeti ko waaye moyen bi fi mu toll nii état moo ko yore waaw moo tax ñuy lancé appel Matar Ba ak président de la république ñu jàpp ci bu baax mais ñu ñaari billet wala ñett ñu dem seeti ko ndax mu mën a dal parce que jigéen la quoi bu góor amul problème mën na ko dund mais comme jigéen la dafa metti loolu moo tax. comme moom mi ngi foofu noonu feebar na te ñun mënuñoo woo waa Arabie Saoudite moo tax ma ñëw ci média bi di wax pour ñoom ñu mën ñëw dégg pour mën fa dem seeti ko xam nga gisanteeg moom waxtaan ak moom. ñun tamit famille bi buñ mënon dem mo gën parce que sénégalais dem fa dëgg la rafet na trop baax na mais tamit mu gis ay deretam xam ñi ngi ni te lam fa toog mu ëpp li nga xamanteni mo dem kon waron nañu mëna dem ñun ko mbayang Diop des Arabie Saoudite di xaar yalla bayam nelaw ci ginnawam tek ci ñuy neub yaayam li waral gisul domam diruk ñetti at ci fàttali moom Mbaye Diop bi muy dem fële ci Arabie Saoudite intermédiaire bi ko yóbbu woon daf ko xamaloon ne liggéeyu tey xale la fay def waaye bi mu demee bay egg liggéeyu mindaan lañ ko doon def waral mu lànk jural ko njaatigeem daal di koy tëj ci nekk ngir bañ mu rëcc bés ñëw Mbaye Diop fippu jàmmaaxloog njaatigeem ba faat ko boobaak léegi nag Mbaye nga tëdd lu tolloog ñetti atu di xaar njabootu kile di njaatige majeur ngir ñu xam ndax dañu koy bal am déet.